Elimane Sall ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay. Euh, sëñ bi nga jiite euh, association pour la défense des locataires du Sénégal mu amoon benn ndaje mardi gi ñu wees jëm ci wàllum location ak lépp li nga xam ne moo ci jafe-jafe ñu waxtaanee ko li fa ruusee nan nga ko jàng. waaw ni ñu ko jàngatee rek mooy euh, daanaka yuuxu yi ñu doon yuuxu ak li nga xam ne ñu ngi ko doon jàmbat at yi weesu yëpp. état yëg na ko ba nangu ne euh, problème yooyu lu am la li ci des nag mooy ñu rafetlu ko di ñaan nag bis buñ koy appliquer itam ñu jël le temps qu'il faut pour mën koo appliquer correctement appliquer ko correctement mooy muy borom kër gi muy locataire bi ñëpp yëg ci seen bopp euh, kenn bañ a jàpp ne euh, dañ ko xañ lenn parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ muy locataire bi muy muy muy borom kër gi. yan dispositif wala dispositif yiñ fa teg ndax dal na seen. waaw euh, dal na suñu xel dalandi na ko ndax li ko waral mooy musuñoo wax ne dañuy mettre sur pied benn organe boo xam ne observatoire la tudd lépp loo xam ne ay rëq-rëq la ci biir secteur bi buñ ko fa yóbboo ñoom dinañ ko joyanti jox leen pouvoir yu mat sëkk sëkk sëkk sëkk donc loolu mësta am donc suñ ko créer c'est un plus parce que bu njëkk boo xoolee dañ daan jël ay loi rek wala ñu jël ay texte daal di ne voilà réguler nañ ko secteur bi nii la war a demee nii la war a demee mais bu ñu demee sur le terrain ki ñi xam ne ñooy acteurs yi parce que locataire bi dañ koy bàyyi ak borom kër gi muy fixer pris nu ko neexe wala locataire bi di yoreel borom kër gi xaalis bu bëri bu dul jeex euh, daw wala mu dem tuxu feneen du ko fay borom kër ga loolu yëpp ay problème la yoo xam ne il faudrait que ñu ñëwaat ci càmbar ko bu baax a baax ba lii nga xam ne dañ koy teg teguñu ko pour locataire yi dañ ko teg pour que secteur bi ci boppam am jàmm. Mm-hmm. bu benn borom kër yaakaar ne dañuy réguler pour xaj leen ñoom seen am-am parce que ay sénégalais lañ yoo xam ne dañoo investir ci secteur bi. Mhm. pour dundal seen njaboot pour dan seen doole. mais li ñu wax rek mooy exagération yi ci am mooy ñëw appartement bu war a jar cent mille nga ne deux cent cinquante mille wala trois cent mille. Mhm. yooyu la ñu wax ne quand même ëpp na te na ci ndodd ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy luye te war a kër ñoom itam. Euh, balaa ñooy à la traité wala balaa ñooy jëm mag loolu daal moom mooy sabab bi euh, bu ñu demee ba nga xamante loi daf ne ñaari weer am ñuy laaj ñeent jëm juróom benni weer mhm. loolu itam exagération la donc boo xoolee quelque part ñenn ci ñi nga xam ne ñoom moom kër yeeg yenn agence yi ñoom ñoo indi problème yi parce que bu fekkonte ne ñu ngi def lu raisonnable loo xam ne day respecter ak ak yelleefu locataires yi du egsi fii donc autorité nag jaadu na ci moom bis bu population yi nekkee ci coono wala jafe-jafe mhm. mu jël ay mesures yu mel nii pour arbitrer mais très justement de façon équitable pour que locater bi ak bailleur bi kenn ku ci nekk xam fooy teg sa tànk. naam nee nga dinañ taxawal observatoire rafetlu nga ko sax waaye ndax euh, teg observatoire bi wut ne loi bi dañ cee lajj. non loolu moom lu leer la loi bi moom dañ cee laaj ndax bu fekkente ne da nga gis ne actuellement euh, euh, prix yi daanaka dafa multiplier wu par ñeent wala juróom hmm. ca la fi daan nekk daanaka boo xoolee ba ñuy jël loi bi sax léegi la gën a metti que 2014. Hmm. fi mu ne nii euh, bu njëkk daawuñ laaj quatre mois ay trois mois lañ daan laaj mais léegi dañ lay laaj quatre mois di la laaj bulletin de salaire di la laaj ne la boo nekkul étranger duñ la loué yooyu yëpp mu ngi ci te loolu amul woon bu njëkk donc il faut que ñëpp revenir à la raison borom kër gi moom moom këram kenn xëccoowu koog moom dafa investir pour am mais na def loo xam ne tim aqulaay taalaam la mu euh, yombalal nit ki nga xam ne moom it yor na xaalis di fay régulièrement te bëgg a dëkk mu loué ko dans les règles de l'art donc il faudrait que euh, organe bi ñuy teg jël loolu yëpp en charge pour que euh, secteur bi mën a noyyi nag parce que ñun itam am nañ yenen yu ñu war a mën a def bu fekkee secteur bi jaar na ci yoon Eh, tant que nag jaarul ci yoon dinañ fi nekk di tirer sur la sonnette. Mhm. di wax kilifa yi ne leen lii ak lii jaaduwul war nañ ko def pour ñu mën koo mën ñu mën koo def correctement mais loolu rek moo ñu tax a jóg du du soxoree bailleur du favoriser locataire mais dañu bëgg rek tey ñu réguler secteur bi de telle sort que bailleur bi bu waree jot xaalisam jot ko à temps locater bi it mu mën a fay ci teeyu bakkanam parce que cherul ba jéggi dayoo. kon bu ma la déggee ngay wax loi bi jëluloon en compte ñi nga xam ne ñoom ñooy bailleurs yi mais tey ndax euh, lii euh, di observatoire bi ñu teg euh, dina jël en compte ñoom ñoom ñii di bailleurs yi. waa xam nga lépp lu ñu mën a def ci secteur bi te waxuñu ak bailleurs yi daanaka c'est perdu d'avance donc il faut forcément parce que démb ñoom ña leen teewal ña nga fa woon. Hmm. ñoom ñooy tabax ñoom ñooy joxe. su fekkee da nga ñëw jël benn décision te boole woo leen ci ñoom ñu wax aussi la leen metti ak lii seen problème daanaka boo jëlee décision yi day melaat ne bale parce que ñoom ñoo tabax seen i kër nag ñoom ñoo ko moom ñooy loué mm-hmm. waaye itam du ma fekkee ne man ma moom sama kër rek damay def lu ma neex wala prix yu ma neex laay def mm-hmm. loolu moom lañ gis sur le terrain mais ay la yéwén tey ku waxal yàlla xam ne secteur bi li ci am jéggi na dayo loolu moom bu fekkente ne yàlla rek a tax ñuy wax jéggi na léegi nag ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ñoo tax affaire bi metti mm-hmm. mais nañ leen woo wax ak ñoom ñu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar mm-hmm. il faut que ñu bàyyi bu fekkee jekku nañ nit rek jaa di koy tër jël benn paaka rek bëgg ko rendi loolu amul amul benn njariñ euh, te du loo xam ne day yombal parce que tey day tax rek autorité bi euh, jëlaat décision pour remetre les choses à du ñu naan dañoo wàññ suñu loxo fekk wàññuñ seen loxo dafa am ci ñoom ñoo xam ne dañ ciy ëppal nag léeg-léeg donc loolu rek la mais bu fekkente ne kenn ku nekk gis na ci boppam hmm. affaire yi dina dox normalement du am benn problème. kon daal na daal. yaakaar am na ba ba ñuy gis le contraire xam nga jaam bitim yaakaar rek la mën euh, bu fekkente ne kilifa yi ñu jiite ñu teg leen fi pour régler suñuy jafe-jafe. Hmm. problème am na ñoom ñu daje woo ñëpp ne leen nag léegi dañoo bëgg lii ak lii ak lii ñu indi ci saafara ah du ñu mën lu yaakaar ci ba ba ñuy gis le contraire. li lii war a am. Mhm. mais lii moom wax dëgg yàlla musuñ koo xalaat observatoire boo xam ne dañ koy teg pour lépp luy rëq-rëq ñu dem saisir leen ñu càmbar ko indi ci ay solution mësta am ay loi rek lañ daan jël di ko teg ne la bu problème amee demal police wala tribunal mm. te police sax ñaare nga dem fa ñu ne la du ñun ñooy régler problème u loyer demal tribunal donc lii bu amee daal ñu def ko nañ ko war a defee teg fa nit ñi nañ fa war a teg parce que encore une fois jël benn Elimane Sall teg ko fa wala beneen euh, nit teg ko fa te amu fa benn njariñ xaalis dong la fay wut amul njariñ nañu ut ay techniciens rompus à la tache ñu teg leen fa ñu doxal liggéey bi niñ ko war a doxalee te waxtaan ci ak borom kër yi waxtaan ci ak locataires yi ba yëpp am solution d'accord ci ñu soog a jël décision. mais buñ ko jëlee bàyyi ñenn ñi rek mm. daanaka du am benn njariñ. mu mel ni limaale nga composition boobu les observatoire. waaw observatoire bi daal li ñuy ñaan mooy. Euh, ay experts yoo xam ne seen liggéey bu mucc ayib la ak itam seen intégrité mu mekk lu mucc ayib intégrité buñ ko waxee mooy koo xam ne ku sérieux la koo xam ne buñ leen dénkee liggéey dinañ mën euh, euh, euh, def ko ci niñ leen ko santé parce que secteur bi nag c'est c'est c'est tentant tentant parce que am na ci ñu am doole ñoo xam ne tey buñ fa tegee n'importe qui mën nañu ñëw am nu ñu def ak moom donc il faut ñu xool ay technicien yu ay yu xarañ ba pare nag mu am benn surveillance accrue pour que li nga xam ne décidé nañ ko mu mën a dox sinon ay euh, mesures la ñuy jël de plus comme ni nga ko waxee woon au départ mm. euh, mais day mujj euh, daal di nax saay parce que tout simplement ñañ fa teg pour ñu doxal ko doxalee wuñ ko ni mu ni mu war a doxee. monsieur Sall am na ñu wax ne li li mel maanaam waxtaan gi ak le fait que conseil des ministres président bi waxtaanee dara lu dul yi ñu jëm ñu bëgg a jël def ko appareil de campagne su ko defee daal di charmé waat population waaw mais xam nga euh, nit ñi nag dofatuñu fi mu nekk nii moom euh, daanaka loo wax rek dinañ xam fa nga jëm hmm. te itam gis nga même bu fekkee dañ koo jël pour mbën koo politiquer effet ba mu nar a am moo nar a gën parce que population yi boo leen diggee dara ñu def ci seen yaakaar hmm. muy ñi politique ak ñi politiqueul parce que ci ci ci locataires yeeg borom kër yi am na ci ñoo xam ne seen yoon nekkul ci politique alors bu fekkee da nga jël décision pour soulager askan wi euh, mu leer leen ne da nga koo jëloon rek ngir politique mhm. retour ba mooy gën a metti parce que bu fekkente ne gisuñ langa nga waxoon dolli ca la nga xam ne mooy lajj ga nga xam ne lajjoon nga ko mhm. euh, bu boobaa effet boomerang lay am mhm. bal booy dóor la rek mu dellu si waat ci sa kaw donc ñun de toute façon euh, munuñu amuñu pouvoir d'autorité munuñu wañ loxo borom kër munuñu wañ loxo état mais am nañ droit nag bu ñu gisee loo xamante ne nii état waxoon na ko te respecté wu ko wala waxoon na ko te defu ko nam ko war a defee ñu taxaw daal ne ah lii état waxoon na ko defu ko nam ko waroon defee population bi nag ñooy apprécié bu fekkente ne c'est c'était électoraliste wala politique ñoom dinañ apprécier dinañ sanctionner comme il faut. te yan jafe-jafe ñoo gën a fës ci wàllum location. waaw lok jafe-jafe yi ci gën a tar nag moom euh, bokk na ci seeraay bi ndax fi mu nekk nii boo xoolee. Euh, lu ëpp juróom fukk euh, ci ñaar fukk yoo jël daanaka ci li ngay gagné da koy jël muy cinquante pour cent ci li ngay gagné loyer bi moo koy jël léegi nag nga war a dàqe ji njàngum xale yi courant bi ndox mi dund bi daanaka doo mën tenir bu ñu xoolee location li muy jël ci euh, xaalisu sénégalais yi dafa jéggi dayo beneen bi mooy bi ñu defee loi beeg léegi ñu bëri dañu génne ñi nga xam ne ñoo exiger woon ñu def wàññi bi ne leen ñoom dañuy tabaxaat dañuy toj defaraat wala dañ ciy dëkk ñoom ak seen njaboot bu ñu génnee ñu yokk ko luyewaat ko ñeneen boo xoolee tey dañuy laaj ñeenti weer wala ñu ne la bu fekkee indiwoo bulletin de salaire du ma la luye wala boo dul étranger du ma la du ma la du ma la jox kër gi yooyu yëpp ay problème la yoo xamante ne nii mu ngi koy dundu te nag jotewul dara dara dara ak li nga xamante ni nii da ngay daw weer bi loo am rek sànni ko ci loyer doo mën a dajale dara pour ëllëg yow itam nga mën a am kër euh, pour génn ci luyaas donc yooyu daal ay jafe-jafe la boo demee ci tribunaux yi dossier yaa ngi fa fees dell ndax ñiy fay mënuñoo fay ndax cher na ñii luye itam bëgg nañoo jot seen xaalis mais mënuñ cee jot te loolu yëpp arrangé wul secteur bi donc ñu réglé ko daal je pense que ñaari ñaari côté yëpp la arrangé. dëgg la Dakar dox daje la waaye tey euh, gis nañ ne suñuy naataangoo yu nekk ci sous région bi seeni capital tamit euh, noonu la amee flux mais teewul euh, cherté location Dakar lañ ko gën a nemmeeku. waaw Dakar lañ ko gën a nemmeeku parce que stabilité bi Dakar daanaka ci Sénégal ci réew yi gën a stable ci sous région bi la bokk. Hmm. ce qui fait que ñëpp ñu nga xam ne dañuy investir dañuy bëgg am envie ñëw fii bëri na ay étrangers beneen secteur bi daanaka réguler wuñ ko hmm. bu fekkente ne benn secteur dafa dox di génne xaalis te mu leer la ne euh, mën nga ci dugg te loxo état du la fekk fa nga nekk pour imposer la wala mu fay loola taxe wala mu mu redresser la wala dara da nga ci daal di dugg di ci gañe xaalis te boo xoolee pratiquement fi mu ne étranger yi dugg nañ ci ak doole dugg nañ ci ak doole euh, suñu mbokk saraxule yi nga xam ne ñoo ci doon nekk daanaka étranger yi ñu ci bëri léegi nangu nañ ko ci ñoom loolu aussi ñoom intérêt la ci ñoom pour que ñu xoolaat yooyu yëpp càmbar ko ba li nga xamante mooy secteur bi trouver li ñuy wax euh, soufflam bi nga xam ne moom la amoon avant parce que bu continuer nii dinañ dem ba ñun sénégalais yi sax dootuñ mën a investir ci secteur bi parce que ñu am doole ñooy ñëw euh, tabax seeni immeuble yu kawe euh, daanaka jox ko joxe ko en location hmm. léegi nag li gën a am solo mooy ñu réguler ko ba képp ku ci ne état mën la fayloo taxe parce que bëri na quartier yu nekk ci Dakar boo laajoon état ñaata nit ñoo fay luye wala ñaata kër a fay luye duñ la ko wax tey boo jëlee fu mel ne Medina nga ne ñaata kër a fay luye soo ko laajee maire bi du la ko wax mm. soo ko laajee gouverneur du la ko wax soo ko laajee ministre bi du la ko wax te loolu du yoon war nañ commune bu nekk wala quartier bu nekk mm-hmm. ñi fay luye ak ñi fa yor kër yu ñuy ñu xam leen ñi joxe kër yi di ci gañe xaalis mën a fay ay taxe ñi nga xam ne xam kan mooy loué ak ku dul mhm. même sécurité sax dafa bëgg loolu mais jël kër yi rek bàyyi noonu nit ñi di ko tabax comme muy pousser comme des champignons mhm. alors ku nekk ñëw investir secteur bi état bàyyi noonu di seetaan je pense que loolu c'est même pas bon pour l'état mhm. c'est même pas bon pour la sécurité du Sénégal tey ci solution location yan jéego yañu la ñu mën a teg ngir régler ko définitivement waa jéego yi bokk na ci observatoire bi ñu teg beneen jéego bi mooy ñu bañ a Euh, euh, locataire bi ak euh, borom kër gi di contracter librement mm-hmm. contrat bi dafa war a am traçabilité de telle sorte que dañ naan bu jaarul bërëb sangam contrat boobu valable mm-hmm. bis bu amee contentieux ñu redresser borom wala nangam nangam léegi il faut que bu ñuy enregistrer ñu dem ci bureau d'enregistrement des loyers yi nga xam ne xëj na éventuellement observatoire bi dina ko mettre en place su ko defee ñu mën a xool ndax kii loué respecté na normes yi ki ñuy loué respecte na li mu war a respecté bu ko defee bu problème ame foofa la ñuy dellu rek ñu sanctionné très rapidement ki nga xamante ni mauvais payeur la wala ki nga xamante ni nii day abusé ci donc il faut que contrat de location yi am traçabilité pour que état mën a am base de données bu fixe bu fiable ba mën a am un œil sur li nga xamante ni nii secteur bi ñu ngi ko ciy def. képp ndax am yeneen mécanisme yi nga xam ne euh, tey dina tax ba nit ñi tàkkale kook location. oui mécanisme bi dans le long terme mooy logement sociaux yi ñuy wax parce que kenn bugul dee ci loyer nit kuy loué bëgg nga am sa kër dem dëkk ci yak sa njaboot mais cherté bi tax na yow doo mën a denc dara ci sa gafaka pour que ëllëg. su fekkee dem nga ba màgget wala dem ga ba retraité nga mën a dem jënd sa kër dem fa yàgg sa njaboot mais nii mu chéré ni loo am na nga ko ci yemale daanaka da ngay loué ba ba gay dee wala boo retraité euh, dootoo am kër donc il faut que ñu promouvoir logements sociaux yi mais mu accessible parce que bu disponible te accessible daanaka du am benn njariñ accessibilité bi mooy képp koo xam ne loxoom jotul ginnaawam ñu dimbale ko ba mu mën a am focus goo xam ne même bu fay def néegu ñax sax mu dem dëkk fa moom njabootam Euh, su ko defee loolu dina xaw a parce que loi offre la ak demande mhm. su demande bi gënee forte offre bi rek daanaka day déséquilibré léegi nag nañ fexe ba ñi amul kër nekk ci location mën a am kër bu ko defee affaire bi dina wàññeeku logement sociaux yi nag ñu ngi koy wax waaye ba léegi euh, gisaguñu vraiment euh, effet yu mu def ci secteur bi loolu nag moom mooy solution à long terme bi daal fexe ba nit ñi am kër ak lu mu sori sori ñu yombalal leen ko ñu defar ko ñibbi ci loolu daal moom mooy mooy mooy mbir. sëñ bi Sall lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di jaajëfal man itam jërëjëf.